di na ñu ngi jéggulu ci ajjuma bi passé duglu ñu woon darsu tey ji itam e, ñu topp xat-xat yi tudd ya kaamil yi ak e, dëj buñ amoon tey loolu it jàppaat ñu ba ñu ñëw daanaka boobu takku takkusaan jot na léegi nag ñu ne woon daal nañ dugal tey benn darsu rek baaxantale ko waaye nag dañ ko bëgg barkeloo ci koor gi balaa koor gee jeex ndax yaakaar nañ ne ajjuma tey bi موي اديمو بي موجي تي كورغي ني اندي درس بي نبغا داف داف كو تي في فضل البر والاحسان في رمضان نغني لال باخ اك رافتال تي ويرو كور نغني لي تي نيك من لي فضل رمضان قد فضل كل ما يقى فيه من الافعال خير وأضرب البر والإحسان نانا غنيل بيغا خامني moo ne ci weeru koor lépp lu waay def ci jëf ju baax dañ koy doublé lépp lu ci waay def ci jëf ju rafet dañ koy duble nee na bokk na ci jëf yu rafet yooyu ak mbaax yooyu as sadaqatu waaw te defe naa eh, yooyu sax mi ngi nekk mm, ñaari point ñetti ñeent tomb yoo xam ne ci ngëneelu alquran la ci ngëneelu lay wax bi ci njëkk mun asadaxatu saraxa ci weeru koor mbokk yi saraxa ci weeru koor ngëneel yu rëy rëy rëy la ci ab jaam yàlla da koy ful ful ful ful ful ful yu am doole ful yu rëy la ko sun borom subhanahu wa taala di fula ndax bu dul ci weeru koor jëf ju baax boo def dañ koy fulandi ba fukk waaye bu dee ci weeru koor nag mën nañ ko ful ba alf alf nañ koo ful ci ba muy junni junni ci ay ful loolu ci weeru koor rek lañ ko mën a amee moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ci benn hadis na afdalu sadaqati fi ramadan ngën ci saraxe daal mooy nga saraxe ci weeru koor sarax bi nga saraxe ci weeru koor tolloowul ak sarax bi nga saraxe ci loolu weeru koor bu yowmal xiyaamee ba yàlla di génne saraxe jaam ba génne sarax yi mu saraxe ci lu dul weeru koor ba génne sarax bi mu saraxe ci weeru koor da nga naan su ma yëgoon sarax yi ma doon sarax yëpp dama koy denc ba weeru koor ñëw ma dajale ko saraxee ndoo ko ndax ngëneelu sarax koor ni mu amee solo bu boobaa moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ci ne man fatara saiman fa lahu ajruhu min xayri an yanqusa min ajri saimi shay yonent bi salaa sallam nee na man fatara képp ku dogal saiman aju woor فله دنا دنا كو نيال موم ميكو دوغال اجروه يولب كيم دوغال من خير ان ينقص من اجر الصائم تدواني وانيتي يولب اجي ورج دار شيئا دار مانام تي مثال دا غاي فك ام محمد مو يو شيخ nga دغل dogal محمد so dogale محمد nak ba pare yalla na ah yow cheikh ya محمد kon nak legi yol bitel bi Muhammad am ci koor gi yow jox nañ la ko booleeg yow sa yooru koor bi nga woor ba noppi jëlaat Muhammad mi nga dogal jëlaat yooru koorom bu toll ni biñ la jox moom joxaat ko ko moom loolu mooy maanaam xadis bi mu ne man fatara saa'iman fa lahu ajruhu min xayri an yanqusa min ajri saa'imi shay xadis boobu boo demee ku ñuy wax imaamu Ahmad moo ko solo ak Tirmisi ñoo solo xaddis bi muy xaddis bu wér kon mbokk yi def lu baax ci weeru koor a ngi noonu yonent bi nee na ngën ji sarax mooy nga sarax ci weeru koor kon boo ci dogalee aji woor itam da nga am yool bu toll ni ki nga dogal yoolam booleeg sa yool yow من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال سلت عليه الملائكة في ساعة الشهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر صلى الله عليه وسلم waxaat na ci beneen xadis mu ne man fatara saiman ku dogal ku woor ala taxaam ala taamin xalaalin waaye nga jële ko ci alal ju lew joo ñaq boo ko defee nee na salla day julli salla day julli alayhi ci yow moomu almalaa'iku malaa'ika yi fii saaati sahri ramadaani ci mbooleem waxtu yu weeru koor bu malaaka yi dañu julli ci yow buñ xëyee ba ngoon ñu fanaan julli ci yow ba bët set ñun la def ba weeru koor bi jeex yow mi nga xam ne danga dogal benn nit bu wor kese nee na it wasala alayhi jibril laylatul xadri nee na itam guddi laylatul xadri gi nga xam ne moo gën a tedd guddi gu rëy la gu mag ci biir weeru koor Sallallahu Alaihi wasallam na hitam bu guddi gi euh jibril day xol ñi nga xamne dañu jullu ci seen alal dem dogal ci aji wor jibril di julli ci ñom and ak malaika yi di julli ci ñom ba kon li bokk yi ay ngeeneel yu am am am solo la yoon Alaihi Wasallam wax ko ci weeru koor mu nekk ay ngeeneel yu mag ay ngeeneel yu reey ñeexal ñeexal ñun xeetu sayyiduna muhammad صلى الله عليه وسلم حديث بيه بودم تبراني موكو موكو صلو مي مو بوكو تي حديث ويري كين موتاخ صلى الله عليه وسلم نينا وكان صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير موم نينا مو غونا تابي تي ديف لو باخ بو ويرو كور نيوي ولا غنا مو غنا تابي تي نيت ني تي ديف لو باخ waaye it wa kaana ajwadu ma yakunu fi ramadaana ñu ne yel xaa u jibri na itam noonu la gënoon a tabe ñëpp it ci bu weeru koor ñëwee ci def lu baax waaw lii itam hadis la boo xam ne Buxaari moo ko solo wax ko kon mbokk yi ngëneelu weeru koor ngi noonu muy tomb bu njëkk bi tomb ñaareel bi nga ci weeru koor mooy euh, xiyaamu lay xiyaamu layli itam moo tax bu weer koor ñooy da ngeen gis Sénégal jàkk yi dañuy fees del del del del del ñëpp bàyyi seen itte yi ñoom ñëpp ndeysaan jël seeni sajaada gàddu seeni kurus jigéen ñi jël seeni sajaada gàddu seeni kurus ñu ñëw ci jàkk yi ndeysaan imaam julli gaay pare jiite leen naafila ngëneelu naafila ci weeru koor moo tax ñëpp di ko def ndax sallallahu alayhi wa mbokk yi dafa wax ne man xaama ramadaana imaanan wa ixtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbihi képp ku taxawal weeru koor di ko naafila imaanan ci ngëm yàlla wa ixtisaaban ak sellal benn ngistal nekku ci salaa salaam ne na xufira lahu ko jéggal ma taqaddama mboole min jikale min zanbihi ci ay bakkaar maanaam ci misaal bu weeru koor ñëwee nga taxaw di ko woor ci bëccëg bi di naafila guddi gi ba wori bàyyiwoo ko benn yoon dogoo ci benn yoon ba koor gi jeex yàlla daf lay wax na la yow diw ba nga masooree ba fii nga toll tey ci weeru koor bi nga xam ne wari nga mboolem bàkkaar boo fi masu juum def ko bu dut bu bokkaale rek baal naa la ko nga daal di set wécc wécc wécc ci ay bàkkaar set wécc ci ay bàkkaar ba mel ni bi nga juddoo ci sa wajur kon ci ngay dégg na képp ku gëm yàlla weeru koor ñëw nga woor ko koor gu sell woor ko imaan bu wér bàyyi ci mbooleem tere yi def ci mbooleem santaane yu mbokk yi nga def ko trente jours yëpp ba mu jeex ne la leer na yonent bi nee na bàkkaar set nga ci comme ni nga set woon ba nga juddoo ci sa wàjju kon ngëneel yi ci weeru koor a ngi noonu ngëneel bu gën a màgg boobu nag mbokk yi yaakaar naa ne euh, amul wala boog bu amee it bariwul loo xam ne soo ko defee bakkaar yi nga amuñ yëpp effacer la nga nekkaat sero te mën naa am yow yaa ngi am 60 ans nga weeru koor fekk la nga góor góorgóorlu ba weer ba woor ko yàlla ne ba nga mësooree sa 40 ans yi sa 30 ans yi sa 55 ans yi ba ci sa 60 ans yi tey bi nga waree lépp effacer naa ko lu gën a màgg loolu amul mu leer na la yow li la dese soo góorgóorloo balaa koor gee ñëwaat nga def lu baax koor ñëwaat. ñu avance ñu avancel wàlla diggante koor ak koor kon mangoog moo tax mu ne kaana sallallahu alayhi wa yi yuhyi layaali ramadan yuhyi layaali ramadan moom dafa daan dundal guddi weeru koor yi wa ida kaana asrul awaaxir ay xasa ahlahu mu ne suñ demee ba ci fukki fan yu mujj daan yee njabootam wa kullu saxiirin wa kabirin bépp mag ak bépp xale boo xam ne yatiiqu salaat attan na julli rek yonent bi dafa la daan yee jóg kàbbar nga ne ci gannaawam muy naafila waaw boobu hadis muslim moo solo muslim moo ko solo kon gis eh, nga ngëneel bi nekk ci loolu moo tax yonent bi salaa salaam njabootam ñëpp la daan ànd di taxaw di naafila waaye léegi jàkka yi it na ko ku bàyyi sa itte dem ci jàkka yi fekk fa imam imam julli gee jiite la naafila da ngay am yool boobu da ngay am ngëneelu boobu nekk ci naafila ci weeru ko mbokk yi tam bi ko ñetteel mooy tilaawatul quraanil karim jàng alquran ci weeru koor yëmul ak nga jàng alquran ci beneen weer weeru koor moo tax is kaana sallallahu alayhi wa sallam yuksiru min tilawati alquranil karim fi ramadan moo tax sallallahu alayhi wa sallam daf daan bëri lu muy jàng alquran ci weeru koor maanaam li muy li muy jàng alquran ci weeru koor du ko jàng ci benn weer bu dul weeru koor ndax ngëneelu jàng alquran ci weeru koor ni mu toll wa kaana jibril alayhi salaam yu daarisuhu fi ramadana jibril di daal ñëw ci salallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar ñuy jàng alquran waaw salaa sallam di ci kanam jibril gis nga ndax ngëneelu alquran te loolu ci weer koor la ko daan def wa kaana salallahu sallam yettilu xiraata fi xiyaami ramadana bu daan naafile ci ci ci ci weeru koor daan yàggal taxawaayam yàggal njàngam aksaru mimma yatilu fi xayrihi lu ëpp lim daan guddal ci leneen lu dul weeru koor fa qad sala maahu layla fa qaraa bil baqara benn bis neena na na ak xusayfa benn guddi ñuy naafila salaa salaam keroog baqara la jàng ak ali imran ak nisaay تال واخنا لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها يسأله من دو اغ سي بن آية بو رغال صلى الله عليه وسلم تخاو نفا نيان فا ما وصل ركعتين حتى جاء بلال بامي ام نيار بلال نيو ت بلال خم نين مودون نود فأسنه بالصلاة كما ورد في صحيح يونس بي صلى الله عليه وسلم غيس نغا لب لا دان loolu nag ñu ko mën bëriwul waaw julli gee pare taxaw di naafila ba bilaal ñëw di noddu fajar wala ba bilaal bi ñëw di noddu fajar fekk la si jàkk ji loolu sallallahu alayhi ko def ngir dabu ngëneel bi nekk ci naafila ci weeru koor moo tax sallallahu wax na ne assiyaamu wal xiyaamu yashfiaani lil abdi yowmal xiyaama nee na koor gi ak taxaw ngay taxaw di naafila ñoom ñaar dañuy ràmm jàmm bi yowmal xiyaamee ndax بيوم القيامة يقول الصوم قال كدينيون ربي يا سما برام منعته الطعام والشراب بالنهر سجامبي من ما تخون ما كتر ون مي لك بتك أقدنان بتك ويقول القرآن القرآن يو تخوي تكنم برام منعته النوم بالليل فشفعنا به كنا يلا تنيش سجامبي غرمل نيكو رمل نيكو غير يلا يو يلا koor muy ñëw ñaan ramu ci jambi ndax li bayyi woon lekk ak naan ndax moom alquran itam ñëw ramu jaam jambi ci karam boroomam ndax moo ko doon jàng guddi gis nga loolu mooy ngëneelu jàng alquran ci weeru koor alquran ci bopp moo lay ramul sa borom eh, <clears throat> tomb ñeenteel bi <clears throat> mbokk yi te foofu lañ bëgg a taxaw incha allah mooy al itikaf itikaf ci weeru koor yemul ak benn jaamu yàlla ci beneen weer bu du weeru koor وهو موم الاعتكاف ملازمة المسجد آه، للعبادة تقربا إلى الله عز وجل من موي nga dem takko ak jakk ja tekk fa ngir jaamu yàlla ngir jege sa borom loolu mooy ixtikaaf waaye yaa ngi koy def nag ci fukki fan yu mujj فقد اعتكف صلى الله عليه وسلم ولم يسل يعتكف عشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله yonent bi salaa sallam weeru koor mosul ñëw lu dul fukki fan yu mujj yi def na ko ixtikaaf ci jàkkaam jiiju ba li mu génn àddina bàyyiwu ko waaw ba li mu génn àddina bàyyiwu ko ba li mu génn àddina bàyyiwu ko waxaala alayhi salaatu wasalaam al masjidu baytu kullu taqi yi nee na jàkk mooy néegu képp ku ragal yàlla maanaam ku ñu gis ci jàkk rek xam na ragal nga yàlla kon moom gis nga dafa daan itikaaf ci euh, weeru koor te itikaaf mooy fukki fan yu mujj yi mu dem dëkk ci jàkk ja ca jumaa ja di woor bëccëg bi di naafile guddi gi di jàng alquran di zikkar ba fukki fan yu jeex kon itikaaf ak jaamu yàlla bu ne ci weeru koor am ngëneel bu rëy bu toll ni ni saraxe am amee ngëneel ni xiyaamu layli amee ngëneel ixtikaaf moom it noonu la amee ngëneel tilaawatul quraan ni mu amee ngëneel ixtikaaf ci weeru koor it noonu la mu rëyee mbokk yi loolu ñu bàyyi xel ñeenti tomb yi mu des benn nag benn bu mujj mooy al itimaar mooy umra umra ci weeru koor bokkut ak beneen ci weeru koor ndax wa huwa umra boo ko xamul siyaaratu baytillaahi xaraam li tawaaf wa sa'yi fi ramadaan mooy nga dem ca kaaba ga guñ xormaal ba nga wër ko nga tawaf ko dem dox safa ak marwa nga def ko ci weeru koor loolu moy umrah nee nak nag moom itam bi ci nek nekul ci benen umrah bu dul weeru koor moo mu ne alayhi wasallam dafa wax ne umratu fi ramadaana taaddilu xajjatu xajjatan umratan fi ramadaana taaddilu hajjatan ma'i nee umra ci weeru koor day tolloog aj goo xam ne bi nga koy aj man ak yow ñoo ànd aj gi kon gis nga umra ci weeru koor itam mbokk yi lu rëy la moo tax bu weeru koor ñu bëri na nga gis ñu dem màkk umra ji yàlla nañu ci yàlla yóbbu bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa qaala sallallahu alayhi wasallam al umratu ila al umra ba ci beneen umra bi li ci ne ci diggante ci ay bàkkaar yàlla da koy faral jaamam bi nee na diggante ñaari umra bàkkaar bu fi nekk yàlla da koy effacé mbokk yi kon gis nga tomb yi lañ indi woon bëggoon ko barkeelu ci weeru koor bi ci ëttu maam Seydi Xaaji Malick bu Mbuur ci seen mbokk taalibi Alxaaji malik si dëkk fii ci Mbuur ci kart bu ñu wax Mbuur Séeréer moo doon sànninte yéen kàddu yi di wax ne yàlla ñu yàlla baxal yàlla ñu yàlla may ñu mottali weer wi weer wi yàlla bu ko yàlla def muy suñu mujj koor te lépp luñ si jaamu yàlla nañ suñu borom nangul lépp luñ si juum yàlla nañ suñu borom jéggal ci mbaaxam ñu ngi nuyu nag xadara maam Seydi Hadji Malick bi yëpp jiital ci kane ca bopp ba te mooy xalifa général du Tidiane di sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour ibnu Seydi Hadji Malick di nuyu rakkam yëpp ak doomam yëpp ak gerbaatam yëpp ak képp njabootu bokk ci njabootu Seydi Hadji Malick ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu